xamante laaj ah, ne waroon nekk ci dem ci ben club demuñ ci lan lañ d'accord la lañ d'accord loolu la ñuy waxtaanee en tout cas. Mhm. mu nekk mercato bo xamante comme niko mohamed Mouhamed Lamine Diop euh, junjee nekkoon mercato bu agité euh, ba dernier jour bi muy le 5 bi passé ci la ci la ci la clôturer en tout cas officiellement. Euh, moy ñi nga xam te dañoo waroon championnat bi dem ci benen championnat mais batay comme lu jëm ci walum Premier League foofu transfert domestique yi mën na continuer batay tey non ci yenen dëkk yi mais comme niñ ko doon waxee rek euh, le 5 bi passé amna joueur yu bari yo xamanteni ñu leen do xaar euh, ñu changer club finalement yooyu les transferts mujjul antu nan ngeen jissé yoy dossier mais itam dossier yi nga xamante euh, ñom ñu nekkoon dossier surprise yu mercato yi ban mercato mom mo leen gëna frapper ban ngeen doon xaar faf gisoo leen ci dara lool yëpp ngeen di ñew ñu waxtaanee ko au 78 150 pardon 150 74 72 78 150 74 72 ngeen woote euh, ñu waxtaanee émission bob euh, ñu waxtaanee euh, thème yoy non dossiers yi nga wax nga ko léegi ay dossiers yo xamante ñu ngi leen doon xaar ba dernier jour mercato bi finalement gisuñu leen te pourtant bokku na ci dossiers yi nga xamante bi mercato bi di tambalé, ñom lañu ñëk njëkk yu ci melni bu Kalidou Koulibaly yu ci melni bu Mbaye Niang Euh, bokk na ci ay dossiers yoo xamante moom lañ doon waxtaanee début mercato bi mais au euh, dara mujj ci finalisé. absolument surtout bu Kalidou Koulibaly bokkoon na ci dossiers yi sénégalais yi doon gën a xaarandi ci euh, période mercato bi parce que. depuis des années Kalidou Koulibaly yi ñu ko doon pressentir euh, soit en Angleterre wala benn club bu mag France comme Paris Saint-Germain wala Manchester City bu Manchester City bi sax bu bu mercato ci mercato bi en tout cas ci la ci lañ ci gënoon am ay rumeur wala ay ay wax yoo xam ne mi ngi ci doon am mais concernant Manchester United ak Liverpool depuis euh, des mois euh, Kalidou Koulibaly ñu ngi ko doon euh, annoncé foofu et tey jii nii finalement mujjul rejoindre ah ci période bii nii mi actuellement il évolue avec Naples donc nekk na loo xamante ne nii Sénégalais yu bëri en tout cas gisuñu seen bopp ci ci ci ci kii boobu parce que jàppoon nañ défenseur bu mel noonu ak avec son talent ak euh, jaar-jaar bi mu am waroon na rejoindre club bu mag euh, cette saison dem jouer ji li nga xamante ne nii Ligue des champions. Mhm. mu nekkoon kon euh, dossier boo xamante yàgg nañ koy wax dama naan sax du guleet ci mercato ñu koy dégg et que peut-être bi moo ci rawati parce que dañoo dégg ay club yu mag yoo xam te yéene nañ ko woon. Euh, Kalidou Koulibaly ci carrière am mu daal di fay am ay trophées et finalement mhm. euh, dara mu ñu ci euh, finaliser peut-être liñ ñu ciy jàngat bokk na ci ni président Naples bi batay dafa jël ben valeur marchande tégal ko Kalidou Koulibaly 100 millions d'euros yooyu ma doon wax bi ba wacc na ba 80 millions d'euros mais ku le mercato bi de façon générale da ngay gis que ni mercato bi Covid 19 daf ci am impact parce que lu bari yaa ngi dégg ay prêt do dégg achat bo xamanté dina egg ci yenn somme yi ni Mhm. parce que dafa situation économique est dafa difficile mais il itam luñ ci mën a moy position joueur bi par rapport au club parce que mhm. en aucun moment dégguñu mom Kalidou Koulibaly mo wané ni bëgg na quitter Naples au mhm. contraire au contraire après trois saisons yo xam ñu koy annoncé sur le départ cette fois il a fait une déclaration pour dire que ni man buma ma laisser sama carrière Naples ça dérangé pour montrer en tout cas que ni nek na joueur bo xamante bëgg na des fofu Naples bu weesoo moom itam beneen dossier bi nga xamante ñu ko doon xaarandi parce que euh, waxtaanee nañ ko ci biir ci biir mercato bi demoon na sax ba ñu yaakaar ni dina dem mais finalement moom mi dafa toog ren muy euh, ki nga xam te moo di Mbaye Niang mooy di Mbaye Niang dafa toog ren ñu ko doon annoncé Olympique de Marseille mhm. euh, donc nekk na aussi un attaquant boo xamante ne nii bokk na ci attaquant sénégalais yi gën a suivre parce que Mbaye Niang boo xoolee euh, moment bi mu jugee Torino ñëw ak fi ñëw France Stade Rennais am na lu mu fa jot a def donc je crois que euh, période du mercato bi euh, fi nga xamante ne nii moom mooy Marseille bokk na ci club bu ñu ko doon gën a gën a tudd ñu bëri yaakaaroon nañ ne dafa war a dem mais à notre grande surprise am na dirigeant Marseille bu génn bu jotoon def benn sortie pour expliquer que ne amul ay négociations yu avancer entre les deux clubs maintenant est-ce que waroon na quitter Rennes wala waru ko quitter l'homme au mooy interrogation mhm. rien d'officiel dans ce mhm. dans ce dossier. et et, et vraiment euh, peut-être communication bi tamit ni mu waroon jàllee jàllu ko. Mhm. Euh, joueur bi il a fait pas mal de postes je ne vais pas dire de sortie parce que waxul ak journaliste, ay journalistes. pas mal de postes là. ak ay postes am yoo xamante euh, bëri interprétation dem na sax ba léegi remplaçant on va dire entre guillemets la reine Mhm. parce que jouer tout lu bëri parce que ren tamit euh, à un certain moment ren dafa préparé won ci départu Mbaye ñu avouer ko ñu bañ koo avouer mhm. et que ñi ñi ñi ñuy recruter à sa place Guirassy ñom dem nañ sax ba am ben position. ci mhm. biir ci biir ren et que euh, vraiment lool yëpp mercato moko ko moo ko indi. donc c'est un dossier bo xamanté xaarandi nañ woon pour mu quitter finalement quitté wul et ren considérablement dafay dafa dafa wutal remplace euh, remplaçant ki xam te moo di Mbaye Niang euh, beneen euh, am na beneen dossier boo xamante ñun ñu ngi ko doon xaar fii nii mhm. internet yi itam ñu ngi ko doon xaar personne n'a pas compris nan lañ def ba Ismaïla Sarr di continuer di jouer li nga xamante moo di championship alors que ñëpp gisoon nañ ni y a des clubs yoo xamante ci élite bi bëgg nañ ko ñuy dem sax banaan dernier jour bi ren daal dina woon essayer récupérer waat ki nga xam te moo di moo di Ismaïla Sarr parce qu'il faut savoir que ni il fallait que ñu recruter Ismaïla Sarr avant mercato bi di jeex parce que mardi passé moo nekkoon list yi nga xamante la ñu waroon déposer au niveau euh, de la Ligue des Champions. bon Ismaïla Sarr boo xoolee am na bëri na ay club euh, yoo xamante ni nii piste woon nañ ko ci euh, période du mercato bi surtout parce que ñu ngi doon wax tout le temps ki nga xamante ne nii moom mooy Liverpool. Mhm. ñu ngi doon club yi gën a officiel yoo xam ne ñu ngi doom euh, bëgg recruter Ismaïla Sarr euh, c' est pas Manchester United c' est Liverpool c' est c' est West Ham euh, c' est c' est West Brom. Mm-hmm. donc club yooyu ñetti club yooyu ñoom ñoo ko gënoon ñoom ñoo en tout cas ñoom ñoo gën a manifester seen seen seen bëgg recruter Ismaïla Sarr et que def jot nañ def ay démarche ah mm-hmm. pour pour ça club bu mel ni Liverpool jot na wax avec Watford jot na wax avec l' entourage du joueur. pour recruter ko donc am na article yu ñu ci defoon concernant euh, offre bi nga xamante ne li euh, Liverpool euh, mhm. Watford defoon na ko for moom la doon xaar donc cinquante millions d'euros yi mu mhm. tegoon pour wax que ne moom mooy tax mu libérer Ismaïla Sarr alors que Liverpool jàppoon na ne moment boobu dafa bëri woon cinquante millions d'euros mhm. donc West Ham la même chose ak West Brom donc am na prix boo xam ne moom la Watford di jaayee ki nga xamante ne nii moom mooy Ismaïla Sarr certainement loolu moom moo tardeel li nga xamante ne nii moom mooy peut-être transfert bi peut-être que ñaari club yi ñoom ñoo wala club yi ñoom ñoo d'accordagul pour def ci somme boobu noonu mais en tout cas euh, club yooyu soxla nañ ko et bëgg nañ ko euh, recruter manifester nañ ko en tout cas wala di ñi euh, nga xam ne moom mooy entourage am jot nañ ko jot nañ leen ci wax ak ki nga xamante ne nii moom mooy club bi di Watford. Mm-hmm. et que par prévision moom Ismaïla Sarr je ne pense pas que ni fii ak mercato bii di ñëw. Euh, dina des foofu na am te moo di championship parce que c'est vrai Watford la recruté ci benn somme boo xamante fort na euh, loolu lay jéem a tiire pour bàyyi ko mu dem que je pense que vu ses qualités les qualités en tout cas du joueur yeneen club yi nga xamante dañoo nekk ci kaw dinañ njëkkantu mhm. jël ko parce que képp ci parce rek que xamante am nga ci euh, ismaël Sarr Ismaël équipe da ngay am li nga xamante moo mais aussi mhm. remplaçant ou sa cadre et en xamante équipe je veux mhm. parler bien sûr euh, de Liverpool à titre informatif rek un euh, joueur boo xamante itam ci dernier jour euh, mercato yi ñu ngi ko doon wax ni euh, di quitté foofu nga te euh, moo di Ligue 2 bi am yeen muy Moussa Konaté daal di mhm. dem ci beneen club am nañ benn internet d'accord ñu jël ko parce que ñu ngi doon xaarandi sànq ba léegi allo. allo oui asalaamaaleykum. maaleykum sëñ bi. maa leen di ziar. ñu ngi delloo ziar bu baax tur bi naka la. maa maa ngi tudd Omar Diallo di woote Espagne. Omar Diallo depuis Espagne bienvenue ci biir émission bi yaa ngi en direct. en fait euh, voilà contribution bi ma bëggoon andi c'est par rapport au mercato Lyon et moi. Amna naa ci côté positif bon c'est mitigé en fait avec côté bu négatif. Mhm. positif c'est que surtout euh, nos jeunes sont là quand même dans l'ensemble j'ai vu que voilà avons na ñu bëri des nga xamante ne trouvé nañu club te c'est mon rêve la parce que euh, les U20 là la majorité c'est dañ talent quoi vraiment. Mhm. yàggoon naa souhaité ñu am ay club professionnel à l'étranger pour ñu professionnaliser wu am maturité parce que voilà c'est des jeunes d'avenir et puis mën nañu football macha allah mën nañu andi bëri ëllëg mhm. euh, am nañu avenir daal. d'accord ci mel ni Pape Matar ñoom John Lopi ñoom Ousseynou Ba justement justement nan nga dit euh, transfert bu Pape Matar pas euh, foog nga des FC Metz Dion Lopi Strasbourg euh, Stafford la Stade de Reims nan nga gisee. transfert il y am solo la vraiment dama vous souhaité parce que Pape Matar Sarr c'était attendu quand même xamoon une question de temps la rek parce que partenariat bo am génération fi FC Metz Bon, mhm. c'est l'un des meilleurs joueurs de génération en en général ça se passe comme ça. Mhm franchement je m'attendais quoi je m'attendais tôt ou tard kii te xam ni foofu baax na ci monde quand quoi qu'on puisse dire il va évoluer très rapidement parce que a une qualité et puis voilà et je pense que c'est un bosseur aussi d'accord macha mhm. John Lopi aussi pareil sur mon club bu baax la ci je dirais même reste mon gagné parce que masha'Allah, vous connaissez mon... Voilà. Mhm. voilà génération bu talentueux là quoi vraiment moom nii pas Matar Sarr ñu ni ñoom Youssouf Badji Youssouf Badji ça, moom rejoint depuis daaw mhm. franchement mhm. ça promet quoi pour proche parce que relève bi dafa am solo quoi tamit. Mhm. voilà am solo la sinon bu ma ñëwaatee ci cadre yi tamit ku ci mhm. mel ni kii comment de Mendy Chelsea loolu tamit dama ko rafetlu vraiment. voilà dem na destination bu baax. voilà da may opportunité mu jouer Champions League. donc voilà am na. am na possibilité aussi nekk gardien ci et je pense qu'il le sera il le sera parce que il est sur la bonne voie am na talent et puis voilà. Mhm. mën na ko nekk. wane na ko et voilà sinon sama quelques déception nag mooy que ni mooy mm, Koulibaly Koulibaly moom wax dëgg yàlla depuis daaw kay man xaw ma lu ko téye naa ko li mhm. bi mu am macha allah fu mu nekk Koulibaly instant dafa waroon nekk jouer des premiers rôles sur la Champions donc mhm. euh, problème je suis vraiment déçu quoi je sais pas si c'est de son côté personnel wala Naples mais waroon na négocier a ko beaucoup de dem parce que prétendant yi la Paris mu Paris soxla City Manchester United soxla woon haut franchement on a trouvé quand même terrain d'entente le club qui yi ñu parce qu'il faut il faut que mu sinon je bu vous mettre Koulibaly moom bu vous bu carrière à Naples ce serait vraiment dommage d'accord donc voilà. Et puis Ismaël Assar aussi. Ismaël Assar quand même, voilà. malheureusement, d'aller voir la deuxième division, et j'aurais pas souhaité ça, mais aussi, comme j'aurais vraiment aimé pour me trouver club qui mhm. mercato était. Mais malheureusement, ça n'est pas fait. Mhm. Et j'espère que ça se fera très bientôt parce que mon, mon deuxième division, mon tout place en quoi, vraiment. Mais ça, le cadre de l'équipe, il y a un talent, il il m'aignant aussi. Maïnian, j'aurais vraiment aimé que, comment dirais-je, en bénin du quoi, parce que je vois qu'il n'est plus tout de la Donc, voilà. Il a grosso modo, mais bon, j'espère que ça se fera très bientôt dans le secteur Inch'Allah. Merci beaucoup. D'accord. Donc, Merci. Merci. Sur le premier internaute, on enchaîne avec le deuxième. Vous disponible. Minchibé. Diop allo salaamaaleykum allo. allo waaw ngi sant bu baax tur bi naka la ak fooy wootee. monsieur Fall depuis région de Louga Darou Moussi. depuis région de Louga. d' yow ah, la ñuy yaa ngi ci biir émission wax sa xalaat. ci sport bi. waaw mhm. ah, mën naa wax ci Koulibaly tuuti dem ngeen baal ma wala. Mhm. yow la ñuy waaw est ce que moom. Mhm. gis ngeen ne moom bëgg naa jóge foofu wala. ndax. ndax allo. allo oui. déggante bi neexul daa mel na de. allo waaw ñu ngi lay dégg. waaw man la gis ne Kalidou daa mel ne des naa ko lu da koo des ba léegi daa mel na da koo xaw a neex ba léegi. Mhm. ci sama xalaat daal laa gis. Mhm. mais am na équipe yu bari doon wër défense. waaw. ñu bari ñu ngi leen doon dégg ñu naan Koulibaly Koulibaly waaye moom dafa mel ni deful benn réaction boo xam ne daal war nañ mën a mhm. topp seen seen bëgg-bëgg ci moom daal mhm. nit ki su fekkee ne bëgg nañ mu dem ci yaakaar naa ne mhm. day fekk mel ne na mu neex ko daal ci sama gis-gis te moom daa mel ne doon naa ci dégg ay cent millions d'euros kon suñ demee ba mel ne tey ji ñu ngi naan ay quatre vingt millions d'euros ak lu xaw a manqué day mel ne daal moom waroon naa mën a xoolaat ay affaire na bu ñu doon dégg cent ba yàgg ñuy dégg quatre vingt est ce que. waaw bu ñu demee ba ci kanam ñaata la ñuy déggaat sama xalaat bu gàtt. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw maa ngi jégalu nag mosuma woote ci émission nag. am na solo nag am na solo. waaw dama jaajëfal bu waaw jaajëf waay. jaajëf nañu enchaîner ak euh, beneen mm-hmm. internet.

amin yow photo yi ngay dugal amin ah xanaa amoo jabar saaxo yow xanaa xanaa boobu ba léegi tali bi nga jël bi nga ne yaa ngi ñëw ba léegi non damay laaj alamin alamin mais maa ngi ñëw mais ah, yow tamit da nga yaakaar ne nga xëy suba rek ñëw mm, yéen boole eh, Sénégal booy dem foo foo nga tibb xaalisu France bi yóbbaale ko lu ko mooy boo demee gars yi dañu lay dàq semaine ngi nii mu ne mi ngi ci yoon bi di ñëw xam naa daa jël tali bi saaxo alamin de sànni na nii say <laughs> di eh, ziar na la. <laughs> naka magal bi mbaa magal ngeen ci jamm rek. wa sant nañ ko bu baax alhamdullilah alhamdullilah yalla nañ ko fekke déwén nit amin amin waaw alamin euh, mhm. man man damay wax lu gatt ci ci Ismaïla sar ñew ci Kalidou Koulibaly après ma ñew ci sama boy bi yalla na tane ak jàmm ndax keroog mom toroxol na ñu deug deug deug deug dëkk heureusement heureusement wax sa xalaat amul wa waaw ah ilaahi la mais équipe bobu li ma am ci Liverpool. Liverpool ah, set yi bëri na de gëj am moom. man maa ngi ñaawal borom yut yi set yi ñëw sama kaw. Mhm. Eh, Alamine gis nga Ismaïla Sarr. waaw c'est vrai mi ngi déglu division en plus corona bi aussi daf ko xawoon a sonal. Mhm. moo tax xam naa amul woon club bu mu mënoon a dem mais Liverpool mi ngi ko doon teg bët tu vois. Mhm. te gars yi aussi Alamine doo des fois dama bëgg ñu participer ci benn affaire. gis nga boo nekkee contrat ci yenn équipe yi. Mhm. munoo fexe ba parce que déjà da ngay jël Kalidou Koulibaly waa Naples dañ ko bëgg. Mhm. ba fi may wax ak yow nii ah. Mhm. supporter Naples yi franchement parler amul lenn lu ñaaw lu ñuy takkal Kalidou te ñun xam nañ Italie nu muy doxee. buñ la jëppee rek c'est fini sa carrière fa lay yàqoo ba faw parce que. dinañ la perturber say match. même say su supporter mun nañ la teg affaire yoo xamante ne que ni sa biir match. dootoo bokk. Kalilu xamna bu baax li muy gérer da ngeen wara wax ne kay président Naples bi mo décidé wul pour jaay pour jaay Kalilu problème bi fofu la. Mhm. mais dund Kalilu mo bëggut té dem mais Kalilu bu amoon Manchester City day dem. hein mhm. ah? mais nak lay démé mi nga contrat bu fekkoon contrat am dafa jeex ba paré ñu ne Kalilu dafa baña dem Naples là je suis d'accord hmm mais dafa am contrat ak Naples war ko respecter. Mhm. Naples moy décider du moy mooy hmm lolu dama ko bëgg a fekkee mën nga ma ci leeral joueur bu amee contrat ak club kan mooy ah. décider. club bi moom mooy décider. club bi moom mooy décider par rapport ak prix bi mu ko war a jaayee prix bu mu koy libéré. voilà voilà c' est pas le joueur qui décide. mais mais mais joueur bi tamit joueur bi tamit am na am na son mot à dire. Mm-hmm. joueur bi war na. non am na manifester que ne bëgg na dem. club bi bu discussion la rek joueur bi bu manifester que moom bëgg na dem mhm. et que tey jii ni club bi nekk ci moment boo xam ne war na bëgg na ko jaay bu ñu mën nañu déggoo pour que mu mu mu rejoindre. benn fi Alfred Gomis mu prolongé ak Dijon. waaw ah. mi ngi nii dañ ko yóbbu Kalilou mhm. parce que clause contrat yi boo da ngay d' accord naa mhm. mais Kalilou da xam ne benn affaire euh, euh, kii dem Naples dem euh, City. des ci Naples pour man amul lenn lu muy wàññi ci kan. c'est que instant yi nii bientôt mercato baa ngi wu ñëwaat dañ koy ñaanal na gën a liggéey mercato bi ñaata ñaata mois moo des deux mois ah. mm. bi léegi mu ñëwaat de joueurs yi nga xamante ne que nii ñi ngi naan dañoo war a dem ak dañoo warta dem mais jarul jarul reyante deux mois yi nañu liggéey rek bu ñu liggéeyee mercato yi di ñëw parce que piste Manchester City piste Manchester City yaakaar naa ne euh, mën nañ waxaat beneen jour mais Manchester City euh, recruté na voilà xoolatul défenseur central man gëm naa ne club bi nga ko doon gëm naa ne gëm naa ne même Manchester City li mu recruté noonu Kalilou moo ko mën mhm. bàyyi ba bàyyi ba bàyyi ba deux mois kii nga xool man man Manchester City dafa teg bëtam ba léegi ci bàyyee bàyyigu ko du moom dong même Paris bii nii Paris amagul de Paris soxla na ko. Mhm. am na club yu mag yi ko soxla. moom kay na liggéey ci deux mois yi ni ñu jëm si nii. Mhm. joueurs yi ngay gis ay Ismaïla Sarr même Sadio Mané ñoom ñëpp nañ liggéey ci deux deux mois deux mois demi la xaw ma deux mois euh, deux mois vingt jours. Mhm. moo mercato bi ñëwaat. mais nañ xaar loolu nga xool lu ne xaj na ci. c'est man des fois damay dégg auditeurs mbokk auditeurs yi lu ñuy wax mooy Kalilou moo bëgg te dem. Kalilou bëgg na dem bu bëggul woon dem dee na carrément du ma dem am na fu lay waxoo. Hmm. mais bëgg na dem mais bëggul bëggul yàq images parce que ni nga xam ne. itali du France itali du Angleterre Italie Italie ay maanaam ay nit ñoo fa nekk ñoo xamante ni. Mhm. nit ku ñuul bu am doole nekk fa imposé c'est rare. mais est-ce que manifester na aussi bëgg na dem c'est ça le problème moom dafa ni moom est que manifester na ko mais est-ce que manifester na du dem. Mhm. xam nga da ma laaj ba xam est-ce que manifester na ne day dem est manifester na ne du wax bëgg na dem euh, fi nga xamante ne nii moom mooy Manchester City wala beneen club parce que gis nañ ne à un moment donné jënd na appartement Paris est que du mm. Paris la bëggoon dem à un moment on sait pas mais moo tax ma ne la moo tax ma ne la mhm. non man gëm naa ne Kalilou bu amoon City day dem tey jii Paris pere woon na Paris mën na fay cent mille cent mille cent mille au cent millions yi mën na ko fay du dara ci moom mhm. mais loolu day day day joué ci kawam après Mm-hmm. parce que bu jaayee bu jëndee Kalilou cent millions dootul jënd beneen jour. Mm-hmm. parce que boo boobaa fii euh, euh, kii nu mu tudd euh, gars yi mun nañ dal ci koom comme comme sanction bi ñu naroon a teg City. Mm-hmm. yaa ngi moo tax xam naa Paris jéemul kii mais Paris mënoon na sacrifier jëf ko mais la problème a nekk man. nañu bañ a yàq xelu joueur bi di ko parce que man côté boobu dafa may xaw metti métti quoi bi gëm naa ne wóor na yàlla bu amoon City jël man loolu laa gëm quoi ba fu may wax ak yow. naa ne Kalilou mais mais def na mais mais mais mais mais Alamine. Mhm. Alamine gëm nga ne entraîneur kii nu mu tudd président Naples décidé wul pour jaay City et eh, pour jaay euh, Kalilou gëm nga lool. offre biñ ko proposer mom mom la d'accord hmm. en plus euh, mais du ko d'accord parce que beaucoup ko jaay. le fait que City def offre bi c'est un différent avec le club anglais en plus li ko proposer dafa ndaw. Mhm. dafa ndaw ça veut dire que vous ko jaay parce que bu ñu fàttalikoo daaw daw Paris Saint-Germain euh, président bi wax na ci ben interview bu mu def ak ben site italien wax na que ne euh, daw Paris Saint-Germain proposé nako 110 millions d'euros pour recruter Kalidou Koulibaly mu bagn ko té lolu mu bagn voilà te loolu te loolu te loolu euh, tey moom mu ngi koy regretter lolu ben aveu la bu mu def ci ben site italien voilà merci té lolu ba mu koy wax mama bobu non covid bi commencé gul won je me rappelle bien non non mama bobu covid Mhm. avant Covid bi le la la ko Paris proposé cent millions. d'euros. woon cent dix millions mais dafa dafa soxla woon pour ligue ligue des champions ak yeneen compétition yi. maintenant fi nga xamante ne nii moom mooy euh, moom mooy ci période du mercato bi ak Covid bi. dafa ne bu gisee benn offre bu intéressante dina ko jaay. moom loolu la waxoon déclaration boobu le président bi wax. mais le joueur en tant que tel deful déclaration pour wax que ne moom bëgg na dem. kan Kalilou. allo. waaw ma ne Kalilou Kalilou ka eh, ba ba ko Paris bëggoon a jënd Paris maman bi mu ko bëggoon a jënd fekk Covid bi ñëwagul woon. Mhm. man je me rappelle bien bañ ne du ñu du ñu prolongé si eh, Thiago Silva waaye su ma juum moom la woon. Mhm. du ñu ko prolongé parce que dañ doon dañoo tegoon bët trop ki nga xamante ne mooy eh, Kalilou Koulibaly. Mhm. te man bëgguma woon sax mu ñëw Paris. parce que Paris fii en général dañuy yàq jour. man gisuma euh, euh, jour jour bu mag bu ñëw Paris Saint-Germain ba pare. ah équipe bu mag jëndaat ko gisuguma ko. Ronaldinho. joueur bu ñëw après en général retraite nga jëm ou nga dem ba sa contrat jeex. Ronaldinho ah kële bi dóor la Ronaldinho. Euh, Sakho. Ronaldinho mais loolu yàgg na. loolu yàgg na loolu loolu jamono tey lay wax. waaw d'accord Sakho xam nga yow yaa ngi ci groupe WhatsApp bi. te yaa ngi yaa ngi ah, yaa ngi yaa ngi enfreint fu mu ne nii benn règle boobu te dañ koo tegoon ci groupe WhatsApp bi léegi yow ñaata kaa nga amoon ci mercato bi ñetti kaa. kon naa bàyyi benn bi garaawul. bi waa waaw nabi nabi nabi waaw garaawul garaawul waaw waaw ba léegi d'accord naa yàgg naa ci ligne bi d'accord naa maa ngi jégalu ba vendredi amul problème amul problème la ci des nañ ñaanal joueurs yi yàlla nañ gagné seen ñaari match yi di ñëw jërëjëf jërëjëf amul problème bu subaa nga amul mhm. <laughs> problème bu subaa nga ñëw ci pronostic gu match bi nga wax ñu sa onze ak sama kan mooy gagné pronostic gu match bi loo teg cent mille cent cent nga tegu bee Eh, Sakho sañ ngaa wax pronostic bi heure bii. ah sañ naa ko wax kay yow xamoo yow xanaa xamoo Sakho. <laughs> baal ba suba nga ñëw ci pronostic bu match bi ak ak onze de départ. na bu subaa bu subaa ngeen xaar ma. <laughs> d'accord incha allah. <laughs> ñoo far bu leen war dara. jaajëf jaajëf waa groupe WhatsApp bi nuyu naa leen nag jaajëf. waa groupe WhatsApp bi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. Mhm. mu ngi di ko jaajëfal bu baax Sakho 78 150 74 72 ngeen woote euh, jox ñu seen xalaat ci mercato bi lan ngeen xalaat euh, ci dossier yi ban molen leen ci Halo. a marqué. allo allo. salaamaaleykum Wi Sport. maaleykum salaam. maa leen siyaar bu baax baax. oui ça va naka émission bi. waaw ñu ngi nii de ñu ngi ci tur bi. waaw tur bi ah jégal ma ko man la frère Moussa Ndiaye international. frère Moussa Ndiaye d'accord dafa dafa dafa am lu ma dégg rek tey si suba ba ma yeewoo. Mhm. ma yeewu di connecté wu xam nga man dama abonné seen page. waa mhm. léegi si laa yeewoo connecté wu gis wii sport dugal. Mhm. ne Moussa Ndiaye dañ ko génnee si équipe euh, B bi yóbbu ko si équipe U19 xaw ma daal ban ngeen ko yóbbu. waaw waaw man ma leen jox ne information boobu na xaw ma foo leen ko jëlee rek mais information boobu noonu amul. waaw parce que man Moussa heure bu ñëwee ñooy bokk benn lal bu ñu tëdd sama rakk Mm-hmm. dëgg la waaw seen émission dama siy dugg nag yéen seen émission dama koy suivre bu baax a baax. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw yéen a ngi def liggéey bu rafet macha allah. mais ba ma ba ma ba ma gisee affaire bi. ma waaw oui sport ñoom xanaa ñoom dañoo bëgg man sax tooñ naa la mais xanaa dañoo bëgg seen journal jar tey. non non non ba ba lire nga article bi parce que source bi mi ci biir article bi. ah dëgg la kay non xam naa loolu léeg-léeg erreur am. Euh, euh, milieu sport moom moo demee nii. d'accord oui. est-ce que mon gars ñu jox sa version est-ce que euh, information bi par rapport à information bu lan nga ci lan est-ce que mon gars ñu si jox sa version yow waaw man moom sama version mooy lu ma leen wax nii rek information bi moom maanaam Moussa Wagué kenn génnewu ko ci équipe B wu Barça loolu nga lu mooy sa version non du Moussa Wagué Moussa Ndiaye Moussa dama juum Musa Ndiaye autant pour moi waaw mhm. non ken génnewu ko si équipe bi Musa dafa blessé waaw xam nga Musa dafa blessé war a toog six semaines mhm. Mhm. léegi nag ci ab en plus tamit dafa war a lijjanti ay papier te Moussa mu ngi soog a def euh, transfert. Mm-hmm. milieu professionnel. Mm-hmm. premier transfert am moo nekk nii. Mm-hmm. léegi foog mu lijjanti ay papier mu xam ma lijjanti ay ba pare tombeek mu def mu am blessure. léegi blessure am boobu il faut mu faj ko ba mu wér xam naa numéro yi lu mu génn sax. waaw xam naa numéro yi lu mu génn sax xam naa gisuñu si turam moo tax ñuy wax Moussa nii Moussa naa. waaw mais xam nga xam nga groupe officiel bu amee moom bu ci nekkulee. ça veut dire que ni automatiquement day dem ci benen groupe bi légui peut-être après dans l'année dina ñeu rejoindre groupe B bi yaa ngi comprendre ma lay wax waaw ça se passe ça non hmm xam nga non lay demee waaw waaw waaw day am groupe officiel bo xamanté mom lañuy joxé ci année bi 2020 2021 et Moussa Ndiaye ne figure pas ci groupe bobu noonu ce qui veut dire que ni ci benen groupe bi lay nekk waaw mom blessure bi motax nak nag dugaluñ ko ci dafa blessé tamit ci article bi dañoo bindé ni il est blessé et que pour des raisons administratives lolo tax instant bi ni mu nekk ci juvénile bi Ouais, dafa blessé est-ce que dafa am ay problème mu papier pour pour pour rejoindre équipe B non mon mon foog mu lijjanti papier papier yi ñu koy laaj foog mu lijjanti ko ba paré. d'accord kon ça veut dire que information bu wér Inshallah allah waaw si si la ñëw bu ñëwee rek si équipe B la nek fa la signer, fa la signer. Mhm. voilà loolu lañ lay wax nii waaw fa la signer mais instant yi mom mhm. comme par exemple comme information bu ngeen dugal mom bobu mom amul mom ah mais information bi li muy wax moy groupe officiel bi nga xamanté mom mo nek ci équipe B Moussa Ndiaye bokku ci donc de facto dafay nekk ci troisième euh, division bi. en attendant muy régler ay problèmes administratifs am. remettre voilà waaw waaw voilà loolu la nag lool la nag mais incha allah bu lijjantee lu incha allah bu lijjantee lu muy ba yàlla mayaat ko wér incha allah. d'accord loolu lañ koy ñaanal sëñ bi. ñu ngi lay jaajëfal amin amin léegi dina ñëw dina ñëw dugg si incha allah si équipe B bi. d'accord commencé entraîner ak ñoom compétir foofu noonu. incha allah ba yàlla def nu muy yéegee équipe B. waaw incha amul benn problème. ok ñu ngi jégalu nag ah ñu ngi jégalu ñoo xam ne dañoo bëggoon dugg ni participer rek dëgg la waaw waaw wax leen lu leeral leen ngeen xam xam jaajëf xam àdduna ñu ñëpp ñoo far dëgg la on est ensemble waaw ok on est waaw am na ñu tam ñu leen jaajëfal am leen jàmm rek merci beaucoup ok émission bi moom neex na trop vraiment jaajëf jaajëf waaw am leen jàmm jaajëf waay jaajëf waay ok waaw xewoon 78 150 74 72 li ñuy waxtaanee mooy lu jëm ci wàllu mercato bi nan ngeen gisee mercato des Lions bi euh, yan dossier ngeen don xaar yan transfert ngeen don xaar pour finaliser ko et finalement finaliser wu bon transfert moo leen jaaxal loolu yëpp mën ngeen ñëw ñu waxtaanee ko 78 150 74 72 allô salam la fi. allo oui salaamaaleykum. na ngeen def ngi ci jàmm Lamine. géographe ñu ngi ziar. waaw man man la géographe de. waaw léegi moom gars nañ ma quoi. waaw mu ngoog. may VIP ci group bi. waaw di géographe ci ligne bi. Mhm, mu ngoog. <laughs> waaw. ana sa copain El Hadj Malick. El Hadj Malick may faj yàlla xam na ko. mais bu ma ñëwee fekk vocal yi fekk ma cinquante vocal. mais démb démb démb déclaration Aliou Cissé bi démb dama ko yónnee déclaration du sélectionneur Aliou Cissé mm. mais mais mais bugg ci tontu quoi. Mm. parce que xam nga dañ ci awoon. discussion y a de cela des semaines concernant Mbaye Niang. non mais yow li nga wax noonu dafa dafa leer. waaw mais wax nañu ci lu bëree bëree <laughs> wax noonu kii gis ba nga ko yónnee quoi. Mm-hmm. nga ne c'est ça que que je te mm-hmm. la dernière fois. Mm-hmm. ma apporter ben suggestion ben suggestion bu ndaw rek bala may wax ci mercato ci waa ji génn léegi yaakaar na ne bala ngay woote di dal ci kaw nit ñi il faut nga prendre le temps de lire tout l'article hmm mais mom liñu wax liñu bind ci article bi mom lay répéter ba paré nan information bo wérul ça veut dire que ne moom liirul dafa gis titre rek ñëw dugg attaquer hmm nit ki bala ngay wax affaire rek ki man lire article bi hmm man ba ma danañ ko waxatee ba mu wàccee tey jii dama dugg ci article bi lii ko mhm. ñu mhm. détaillé wane ne carrément pour des raisons administratives avec sa mhm. loolu la wax ndax kiyul naa ko ma xool fii nii ay seize liir naa ko fii nii ça fait que Sénégal bu ma ko déggee léegi-léegi muy wax ba pare tamit pompe parce que man US Sport wax dëgg fa yàlla mosuma faa gis information bi nga xam ne ni c'est pas fiable. Mhm. mosuma gis gars yi remettre leen en cause wala ñu leen di wax lu ñaaw li nga xam ne nii amul. kon ça veut dire que ne bu ma déggee ni di intervenir di dal di dal ci US Sport man dina ma métti. parce que man mënuma yeewu mënuma xoo toog trente minutes bu ma ci duggul quoi. Mhm. waaw mënuma dugg trente minutes. ba wax dëgg fa yàlla ñu ngi ñu ngi ñu ngi euh, ñu ngi masawu quoi. ci ci mhm. wax ji parce que. comme si que ne parfois doon génne information yu wér. alors que ne lu leer leer la. Mhm. moom li nekk ci article bi moom la kiyaat te article yëpp dafa am source. sa mhm. veut dire que ne source fi ngeen koy jëlee information yu wér te boo di génne information di ngeen ko saytu saytuwaat ko ba pare balaa ngeen koy jox auditeurs yi. kon mhm. waa ji moom na demaat mu lire article bu fekkee ne mënul lire mu wut kenn ku ko mënal liir mu liiral ko article bi de A à du mën ko koo expliquer moom mu xamal boppam. Mhm. mais moom li mu expliquer yéen loolu ngeen expliquer ci article bi. kon mhm. pour man. Mhm. bon y' a pas intérêt muy wootee dem di wax quoi. non amul solo on est ensemble ñun ñëpp ñoo far. waaw. concernant mercato bi. bi ma ci gën a neex mooy bu Edouard Mendy. waaw waaw parce que moom wax dëgg fa yàlla. signé na contrat bu baax a baax a baax ak Chelsea te mu ngi mhm. wane ay preuve am quoi gars seen xol mhm. sedd na ci moom mhm. gisoo moo tax gis nga gis nga joueur africain est-ce que est-ce que yow gis nga mos a gis joueur africain bu signé cent millions d'euros joueur africain bu alami signé contrat cent millions d'euros joueur africain bu signé contrat cent millions d'euros peut-être peut ak génération ñoom Sadio Mané Mohamed Salah Mahrez mën nañ ko gis de. que mën nga ko cee gis ba tey ba nii. ba nii am naa yaakaar ci peut si Sadio wala Salah. waaw mais mais est nañ ko. Sadio il a été acheté foog naa quarante encore mais dama ne actuellement ak fi ñu toll quoi dans le futur peut-être. problème bi moo nekk ne y a un racisme total. Mhm. loolu moo nekk ci kaw Koulibaly. Mhm. tey ku jënd Maguire tey jii naa quatre vingt dix millions d'euros tey jaay tey mën nga fay ci Kalidou Koulibaly cent vingt millions d'euros. Mhm. qu'on se la vérité. mais woon na pour. respecté wuñ football africain ils ne veulent période boobu noonu la mais problème bi. Mhm. boobu noonu dañ koy jënd ba Kalidou va valer plus. Mhm. actuellement valeur marchande dina wàcc ak Covid bi. Mhm. mais ah, problème bi moo nekk ni carrément ne dama la bëgg dama la bëgg euh, wax benn affaire al amin mhm. gis nga na lañ koy waxatee dinañ dundu ñoom fu mu nekk ni la mooy seen politique nañ dund waddee duñ gis mhm. joueur africain bi nga xam ne ni tay tey tey teg nañ ko ci kaw ne euh, c'est un africain ki est le joueur le plus cher au monde tey ñoom seen politique yëpp loolu la tey Kalidou Koulibaly tey tey tey boo gisee président bu ko libéré xam na ne Kalidou Koulibaly bu ko vendre bu ko jaayee yenn valeurs yi. pertement la. Mm-hmm. te actuellement Italie c'est équilibré ah. toutes les équipes se valent. Mm-hmm. toutes les équipes se valent fu mu nekk nii biir biir Italie. tey tey tey tey xam na ne tey tey tey ak Napoli mën na fa gagné benn affaire bu bu demee bay jënd Osimhen quatre vingt millions quatre vingt millions d'euros dem di ko indi. un gars n'a marqué que treize buts. ça veut dire que ne moom. carrément que ne nga xam ne nii révélation la. ça veut dire que ne Napoli tey ñoom seen politique am na leen lu ñu bëgg. Mhm. tey City tey défenseur bi mu bi mu jëndi tey Ruben Dias xaw xaw ko. Mhm. Euh, ñaata la ko jëndee soixante huit millions d'euros. Mhm. il est méconnu. tey ça dire que ne Kalidou Koulibaly c'est un défenseur de classe mondiale. te man mara naan bu mu ko tax a naan petit quoi. jour gis nga bu ñu la respecté jëndee la yenn prix yi moom mooy loolu noonu boo ñëwee di nga kii. Euh, di nga imposer. Mhm. tey tey tey Edouard Mendy tey boo doon xool top cinq des meilleurs gardiens tey jii nii du monde tey doo ko ci génne. si la bokk c'est un Africain. Mhm. les gens ne font pas sa promotion. Mhm. gars duñu wax ci moom ñun amuñu. ñoo gars yi fii comme canal nu ñu amee seen i kii nii dem di jaay. tey meek meññaa lañ bëggoon forcer Chelsea dem di ci wax ay détails yooyu noonu mais kooku noonu. Chelsea xalaatuñ koo teg seeni i camp. yaa ngi dégg. tey boo gisee déclaration Kepa beeg yooyu noonu loolu dafa métti espagnol yi. Mhm. Mhm. espagnol yi tey tey tey li Kalidou li li Edouard Mendy ñëw di jouer nga gis Kepa dem di wax. Mhm. loolu professionnel du waxee noonu quoi. Mm, maladresse parce que professionnel doo nekk ak sa nawle carrément que ne damay damay renverser tendance. ça veut dire que tey Edouard man transfert am dama ci kontaan. te dina won aduna bi yëpp ne il fait partie des meilleurs gardiens au monde actuellement -hmm. buma kontaanul moy bu Habib Diallo -hmm. wa bu Habib Diallo mom wax deug fa yalla yàlla mhm. kontaanuma ci quoi -hmm. yaay deug tay ji ni parce que Habib Diallo -hmm. bon jour bo bugul dem ken mënul la forcer nga dem mënul ne mhm. jour bo bugul dem ken mënul la forcer nga dem da ngay honorer sa contrat da ngay xol fi nga xam ni carrément que ne foofu la see sa intérêt nekk loolu noonu yëpp. Mhm. nga toog nga nga euh, euh, nga jéem ko lijjanti mu dem. Mhm. beneen transfert bi avorté bi. Mhm. man je ne suis pas contre que Ismaïla Sarr mu resté Watford. Ismaïla Sarr tey gars yi bu ñu demee bay fay ci ay cent dix millions euros euh, cent dix millions d' euros. Sancho waa Dortmund mu dem di bañ. Ismaïla Sarr Manchester ñu fay ci moom. ah quarante cinq millions d'euros wala cinquante millions d'euros <laughs> mais Sancho ak Ismaïla Sarr c'est quoi la différence. waaw il est tellement talentueux. c'est quoi la différence. Mm-hmm. non c'est ça non c'est ça c'est que tey tey tey am na leen li nga xam ne nii tey tey tey tey tey dañ ko dañ ko war a lijjanti tey jii nii ñu wax ko. Mm-hmm. mu kii nii parce que ñun tant que kii ñu suñu joueurs yu ñu leen mettre en valeur. vous croyez que la moo tax gars yu bëri duñ nangoo ñëw équipe nationale football si. Mm-hmm. parce que dañ naan boo nekkee international français ci la sa valeur marchande bi gën a jar boo nekkee international Sénégal. Mhm. loolu moo tax suñu biir nationaux yëpp di bañ a ñëw Afrique pour des mhm. pour des intérêts personnels quoi. d'accord loolu la quoi parce que gars yi fii amuñu promotion kenn du jaay seen i kii. Mhm. ah moom mooy loolu xoolal Pogba ba mu demee Manchester ba tey doxul mais tey tey tey boo ko doon laajte tey ay cent dix millions cent vingt millions d'euros lañ lay wax ko amul doo que jour la yi nga xam ne ni buñ bonee sax. tubaab yi dañuy génnee beneen faay ci équipe bi pour wan que ne joueur bi bonul de mais système bi ñu teg mu àndul ak performance su joueur bi mhm. c'est ça c'est ça suñu problème mhm. mais nag bon ça va quoi yàlla baax na yàlla ñu yàlla jàppale bon bon suñu joueur yi am ay contrat yu baax am ay club yu baax mhm. yàlla jàppale ñu waaw élage Malick wàññi yu tuuti <laughs> wàññi kaas bi tuuti baax na sa copain malik, Malik ñu koy nuyu au passage. non Elaj Hadj malik, non ñu koy nuyu au passage. quoi man mosuma ga dégg mu woote quoi. ana mom du woote ci ligne. mom non du woote mom d'habitude ci groupe whatsapp bi la koy kar rek. ah nga ko trop. d'accord da tamit dugg ñu ñu xaar <laughs> ñu lay bu baax. <laughs> ok amul problème. Mm-hmm. ok trop. merci jaajëfal ko bu baax ah, moom géographe ah, euh, mën nañu enchaîner ak beneen voilà mën na jël keneen ah, bu fi bu fi keneen nekkul wala en attendant rek ñu fàttali ne y a pas mal de dossiers yoo xamante mhm. mën ngeen ci réagir gis nañ ki nga xam te moo di Papis Demba Cissé ma nga Fenerbahçe moom ak mam Baba Thiam ñoo départandoo euh, ci mercato bi peut-être à des jours euh, après mais ñoo bokk mercato bi en tout cas mhm. gis nañ foofu itam mam Biram Diouf mu nekk Atay Sport euh, mom tamit euh, ci mercato bi ni la donc pas mal de choses de dossiers yo xamanté nañ ci réagir Avec Diallo aussi allô allô allô oui. oui salam wa alaykoum salam wa alaikum sëñ bi na nga def. alaikum santé yalla bu baax. bi naka la ngay woté Kamara Mamadi maa woté Kolda. depuis Kolda d'accord. ya ngi en direct. alhamdulilah wa ça va. ça va euh, bon si mercato bi moom man mhm. c'est pour Kalidou Koulibaly si situation Kalidou quoi. Mhm. moi je me dis que Kalidou ça passer carrément le niveau de Napoli. Mhm. franchement Kalidou c'est un joueur de classe mondiale. Aujourd'hui, peut-être, on peut l'imaginer à la Juventus de Turin. Peut-être, mais ay championnat comme Angleterre la war le football mhm. wala Espagne mhm. rester toujours dans un club qui peut-être ne fait pas jusque-là l'unanimité le performance des xaw a wàññeeku aussi bon amuñu régulier euh, régularité quoi mhm. voilà légui man maintenant, ma affaire bi nu démé ba légui mom mënul fexé ba jógee fofu ça c'est mon problème Euh, lan moo ko taral ta lan moo ko lan moo ko téye foofu ba léegi man ça je me pose la question et je ne sais je ne parviens pas à la à avoir la la réponse. Mm-hmm. c'est-à-dire du du jour bu taw. Mm-hmm. tey tey ay vandaay kii ngay gis ni ñoom ñoom ñëpp ay baram ay kii nu ñu koy woowee sax Ramos. ñoom ñëpp tey bu ñu bu ñu leen taxawalee ñu taxawal Kalidou Koulibaly ñu bëri Kalidou Koulibaly nañuy tànn. Mm-hmm. oui c'est le moment. mu mu wane boppam parce que voilà. Mhm. man xaw ma agent yi ñi ko entouré man xaw ma ni ñuy ni ñu koy defee ba ba léegi mënul mënul fexe ba ba génnee ci quoi man ça c'est ça c'est tout à fait un problème pour moi quoi peut-être. Mhm. bu ma mënee amee ay éclaircissement ci ah, ci wàllum woowu kay dama ne trop quoi. d'accord. Mhm. ok merci beaucoup. jaajëf waaye maa ngi rafetlu seen seen plateau bi waaye vraiment c'est vous faites un travail extraordinaire. merci beaucoup ok merci beaucoup. donc am pas mal de dossiers on a te mën nañ réagir par rapport mhm. au mercato bi mhm. euh, je pense que ni avons bu ñu euh, peut-être euh, trophée ci ci mercato bi mercato bi nga xam te moom pour moi, sans doute pour Edouard Mendy Il faut que Chelsea déception bi se trouve peut-être ci Kalidou Koulibaly encore une fois parce que daaw itam déception la mais man man man man aussi am na une déception concernant ce mercato avec euh, tey jii parce que championnat Sénégal bi nga si euh, beaucoup de joueurs de jeunes joueurs sénégalais ci période bi dañ daan di dem à l'extérieur di signer un contrat c'est pas le cas mhm. cette année on n'a pas eu à part le joueur de Jambar et Pape mhm. Matassar, euh, mhm. et le gardien de but de Génération Foot on n'a pas assez de de joueurs qui ont ni nii de nañ fi dem euh, pour signer un contrat professionnel euh, à l'extérieur lol aussi euh, mon année c'est une une déception et que c'est dû du fait que peut-être à coronavirus parce que c'est la c'est la première fois parce que Sénégal beaucoup de pays exportateurs de jours, ils ont exporté en tout cas des jours en Afrique voilà mm-hmm. donc ont dit, ils ont dit, ils ba dit, nga ont dit, ils ont il n'y a pas beaucoup de joueurs qui quittent cette saison pour dem à l'extérieur, euh, ça, pose problème. Mhm. On revient dessus. Allô Allô, oui. Oui, salam alaikum. Alaykoum salam. Sen Salam. tour Salam. salam Ça va, alhamdulillah, PND. PMD, nakamu? Ça va, santi Salam. Salam. Et vous? Jam Santi Salam. D'accord, ya Salam. en direct PND. Concernant concernant sujet du jour mhm. intéressant de par rapport ce mercato des Sénégal, je pense que c'est un mercato plutôt réussi de mhm. juste le cas Ismaël Assar, mon mhm. il a jusqu'au 14 octobre pour pouvoir intégrer une équipe de Premier on verra 14 octobre des maintenant concernant les autres pays, je pense que côté gardien, on est, on est pas mal gâté. On a deux gardiens, mhm. numéro 1, numéro 2, qui, dans deux clubs qui vont jouer la Ligue des Champions, mhm. Rennes et Chelsea. Mhm. Et ils seront deux titulaires, donc je pense que c'est une, très bonne nouvelle pour Alou on voit nos anciens gardiens depuis le départ de Tony Silva. <laughs> On a eu que des Bouna qui ont joué aux États-Unis, pas des donc, je me dis que là, il est, très bien gâté. Mhm. Maintenant, côté, côté, côté, côté jeune aussi, il y a, il y a, il le transfert. Mm -hmm. Lopis, joueur le voir, c'est il est énorme talentueux. Mm Mais maintenant, nous avons un championnat. À l'occasion d'aller jouer en Ligue 1 et j'espère que tu vas faire du très bon boulot là-bas avec, avec il aura du temps de jeu. Ça, c'est très clair parce que l'équipe de quand, quand on voit les jeux qui jouent, on peut dire que là, il peut trouver sa place et faire une énorme. Mm-hmm. Il y a aussi Bachi, qu'on a tendance à peut-être un peu oublier, le, coéquipier de, de Crépin Diata, Youssouf mm-hmm. Bachi. Je pense que c'est l'avenir du football sénégalais. Hein. Lol, j'en ai la certitude. Absolument il continue à progresser, il va nous faire énormément de bien. Mm-hmm. Lola Alif quoi Oui, Ibrahim Agnan aussi, il ne faut pas l'oublier. Tout comme Badjian, hein, jour il y a une chose que le Sénégal a commencer à me c'est ça qui me plaît dans, dans, dans, dans cette équipe-là. Mm-hmm. Moi, que jour il est confirmé en ce moment, comme Cheikh Okoyate, comme, comme Idrissa Ganagay, comme Sadio Mane bi ñu équipe de génie ils ont fait de très très bon travail si on se rappelle bien du JO de 2012 ils ont été excellents mhm. après ñu ñëw imposé là laa mën nañ am njort bu parce que jour la yoo xamante ni ku si mel ni Niane ku si John Lepi ku si mel Youssouf Badi, c'est des joueurs qui ont confirmé dans les équipes de jeunes avec la coupe du monde avec mhm. d'autres sujets euh, compétitions africaines aussi mhm que top et ñu toppee ci c'est un grand frère ils vont ils vont ils vont ils vont ils vont faire de très bons boulot et que au ëppuñu leen talent donc je me dis que pourquoi pas eux aussi ils arrivent dans dans de très grands clubs. Mm-hmm. et faut aussi nous ajouter que ni Formose Mendy aussi dafay euh, yoko euh, colonie bi nga xamante moom bridge nekk ok, formos kay Mendy aussi là ça aussi c'est très important c'est que boo jouer au joueurs yoo équipe nationale dans un même club intégration c'est plus facile. exactement. Crépin Diatta moo leen ko jiitu là Crépin Diatta C'est un cadre dans cette équipe donc lui il va les aider à s'intégrer gis nañ ko ci premier match en Badji il est énorme il a été jour, du mois pourquoi parce que Crépin Diatta moo ko doon moo mhm. mhm. PMD Allô. oui waaw da ngay élever la voix un peu parce que ñu ngi lay ñu ngi lay perdre mhm. Mané, Mané, Mané Badji, on a vu premier mois depuis début de saison, il a été jour du mois au club Bruges. Très mhm. performant. à, côté d'un Crépin aussi, très performant. De ñom ñaar ben ben ben complicité il dégage ça. Mhm. Ça va être important aussi pour l'équipe nationale hein, parce que Crépin c'est pour le futur c'est notre, notre étendard. Après mm -hmm. Mané, là il ngi a jouer mais c'est sûr que après Mané le, celui qui sera sur le devant de la chaîne, normalement, ça devrait être Crépé déjà parce que mmh. dedans, et c'est sûr. Mhm. L'année prochaine, je pense, avec performance définie, il va quitter le, club rouge. Pourquoi pas aller dans un club comme Marseille, comme Lyon, pourquoi pas en Angleterre, en Espagne mhm. C'est sûr, je pense que le Covid, c'est un freiné mhm. parce qu'il y avait pas mal de clubs qui ont été mais sûrement, si on a dit que c'est un peu cher donc mieux vaut nous faire. peut-être même mercato d'hiver bii mais mën na quitter mm-hmm. Bridge. Et je, pense que c'est une très bonne nouvelle pour lui et pour le Sénégal. Pourquoi Parce que man, pour moi, mon démon, ça serait un peu tôt. Mm-hmm. Euh, je veux que Jeff Ben saison avec le club rouge, moi, l'année prochaine, il avait fait une très bonne saison, mais ce n'était pas la star de l'équipe. Mm-hmm. Cette année, avec les matchs qui sont jouer la star de l'équipe, c'est qui C'est Crépé Diata. Tout repose sur lui. Si je gagne cette année d'expérience-là, pourquoi pas dans mhm. imposer grâce à ce step. D'accord. Mhm. D'accord. Donc, très bien. Je lui aussi, c'est une très bonne nouvelle. Il y a aussi euh, Diao Balde Keita qui a quitté Monaco. C'est une bonne nouvelle parce que là-bas. Sandoria. Sandoria. Il aura du temps de jeu, ça c'est sûr. Mhm et aussi euh, euh, am nañ joueurs yoo xamante ni club yi ñu daaw fa lañ nekkaat ren demuñu ñaka dem boobu je pense que c'est une très bonne nouvelle pourquoi parce que tu mhm. vois euh, Ba et le Abou Cissé mhm. Mhm. deux joueurs yo xamante ni daaw on les a vu avec Olympiakos cette année demuñu fenn ca Olympiakos recruté wul ay défenseur donc ça veut dire que ils ont confiance en ces deux footballeurs donnons du temps. côté Porto, Mamadou Loumdiaye, l'année passée, il entrait souvent à la deuxième, à deuxième mi-temps. Il s'est mhm. imposé cette année, mhm. son année, pour s'imposer dans ce club. Pour imposer où, au FC Porto, ça veut dire qu'il aura l'étoffe pour s'imposer en équipe nationale. Parce que mhm. Porto, c'est un, un Donc il y a tellement de joueurs qui ont maintenu ils, auront l'occasion cette année. Je me dis que cette année, le Sénégal, normalement, ces jeunes joueurs de moins de 22 ans, moins de 20 ans, c'est leur année pour, confirmer. Don Lopi, Youssouf il y en a tellement. Donc, je me dis aussi, vu que c'est une année pour maintenir en Coupe d'Afrique, ce sera l'occasion pour aller au essayer de les convoquer pour qu'ils cette expérience du, niveau international. D'accord bon bon bon résumé PND. encore une fois. nekkoon <laughs> loolu moo nekkoon sama xalaat ci ci mercato des Sénégalais maintenant Ismaël Sarr. <laughs> club anglais le transfert le 14 octobre lay donc moom mën na jugé. à tout moment Je dem Premier League à tout moment. d'accord. foofu naa Manchester United est intéressé mais pour moi <laughs> j'espère de tout mon cœur qu'il va signer à Son Villa je veux qu'il signe à Son Villa. À mhm. Son Villa d'accord peut-être peut-être une année te mois wax sa xalaat. Mhm. Euh, vu vu évolution bien sûr avant avant transfert de Messi di jeex. allez merci euh, beaucoup. merci beaucoup PMD ñu koy jaajëfal bu baax merci d'avoir partagé. Euh, ton mhm. avis mm -hmm. avec euh, nous Moula laaloon benn point boo j'aurais bien voulu am ay internet du ci réagir mhm. euh, muy mercato ki nga xam te moo di moo di Keita Baldé Diao amul woon temps de jeu Monaco moi euh, équipe nationale mu nous avec Sampdoria après un an nous avons sa option d'achat nous avons ñëwaat équipe nationale. on peut absolument que fekkee am temps de jeu qu'il faut. et puis mhm. euh, remise en forme voilà remise en forme oui parce que c'est un joueur très talentueux bon comme le Sénégal dafa am ci moom bien Keita Baldé Diao personne ne doute de son talent. Euh, de ses de ses performances yi nga xam tane ni jot Italie et que beaucoup ko waté à Sampdoria pourquoi pas voir un Keita Baldé Diao qui sera. Euh, très prometteur wala qui sera euh, à la disposition de l'équipe nationale du Sénégal. Mm-hmm. on espère en tout cas ñu gis ko moom euh, Keita Baldé Diawa ci li nga xamante. Mm-hmm. moo di yeneen échéance yi comme nous ko Aliou Cissé waxee rek dafa am ay conditions yoo tax. Euh, mu recruter ay joueurs mo convoqué ay joueurs plutôt ci li nga xam te moo euh, match amicaux yu octobre yi yenen condition itam dina am pour yenen match amicaux yi euh, mhm. que ce soit en novembre wala li nga xam te moo match officiel et on espère lui le retrouver parce que mi ngi doon constant ci équipe nationale du Sénégal donc dina baax itam ñu dal di len gis ñuy rappeler itam que ni émission bi mën ngeen ko suivre ci li nga xamante modi suñu page YouTube Sport TV Diop dama lay bàyyi xé nga tàggatoo waa di jox euh, internet yi euh, demee incha allah ci match Sénégal euh, Maroc Sénégal donc mu nekk match amical on vous donne rendez pour seen pronostic ak li nga xam ne moom ngeen xalaat ci rencontre boobu noonu di leen jaajëfal di leen jox rendez-vous demee incha allah. le temps est donné il y a une longue journée kon on rappelle que le match c'est à partir de 19h au Maroc 18h au Sénégal donc dinañ faire euh, un plateau spécial par rapport à ce match On y a un pronostic un xalaat mais surtout le 11 le 11 la Aliou di je pense que c'est ce vous bëgg nañ commenter dañ leen di dig daje kon ba inshallah incha le di leen Thank you.